syndicat de le euh, cadre unitaire des syndicat de transport routier d'accord nañu duñu dem grève grève grève au contraire dañuy pour que ñu jappal pour que mesures yi mettre en œuvre ñu nu ñu ko nous def ci position une position vraiment républicaine à, ah, conscience que fii ñu toll ak li fi xew grève xaju fi te grève mënu fe nekk donc ñu wane taxawaay boobule wanewuñu seen intérêt bopp mais intérêt population la ñu wane lan mooy république lan mooy man ne sàmm ay bakkan ak aussi lan mooy aar ay citoyen donc CUSR ak ñu mu àndal ñëpp parce que am na ñeneen les acteurs portuaires aussi d' accord nañ ni grève ñu aftu demul grève ak maanaam garage yu bëri kenn demu ci grève parce que jamono yi fi mu toll ay affaire grève pour faire. faire. di wax grève aussi am yoon parce que kuy grève da ngay def préavis boo joxul préavis droit de da grève donc il wax a ni état gouvernement man en tant que ministre en charge du secteur ah ubbi suñu pour pour parce que logis gis ay l'ogis, la loo gis maanaam ay saafante la que état am dafa am loo xam état dana ko nangu ak loo xam ni état du ko nangu état dana taxaw maanaam lu mu ko war a def ci ay responsabilité am mu def ko ku bugg liggéey nga dem liggéey ku bugg a grève bu la neex nga grève waaye ku ci jóg ni damay yàq wala damay def la état dana dal sa kaw loolu moom dafa nekkoon loo xam ni il faut ma wax ko leeral ko les forces de sécurité et de défense daa jël suñu mesure yëpp ba nga xam ne képp koo xam ne nan nga gàllankoor circulation bi You dana dal sa